xam man man personnellement. Mhm. hier j'ai failli écraser des lampes parce que ba ma gisee détermination jeune, malgré liñ ci rey. Mhm. malgré liñ ci tëj. Mhm. mais jeunes caravane bi ñu topp ko. ba détermination jeunesse boobu. waaw euh, Pape allez, ça fait ça fait la chair de poule. day tax nga xam ne réew mënul bañ changer. réew mi mënul bañ changer parce que la jeunesse veut le changement jeunesse bi fi ñu jaar yag nañu nek ci Sénégal ken mësu inspiré autant ken mësu leen autant sen bop tay gëm sen bop bobu ñu def mom moo ñu né li il faut mu am au péril de leur vie au péril de leur liberté ñu bari ñu ci kasso bi au péril de leur confort ñi dugg ci géej gi dem ñi exilé wu ils ont tout donné lenn kese tey

Euh, xale yi bu ñu gisee ñun. Mhm. malgré que bëgg nañ ñu xàmmee nañ ñu mais ki ne ci seen biir xol ba tax ñun ñëpp ñu ngi koy gisee image am. Mhm. ba ci Bassirou Diomaye fay muy le président Ousmane Sonko fi ko xale yi teg. Mhm. kóllëre bi ñu koy ji di ko ko woon ci daw di ko ko woon ci woy di ko ko woy ci sonn pour woon ko ne ko yaa ngi tëdd kaso ndax ñun sosal nañ la ndax ñun tuumaal nañ la ndax ñun ñàkk nga sa liggéey ndax ñun. mais bu vous yalla dinañ gens ak yow jël réew mi ko ci sa loxo projet bi fal ko. c'est historique et nous suba dinañ ko mais on est devant notre histoire aussi parce que. waxna la ay mam demb dañu raté. Hmm. Euh, époque euh, Mamadou Dia. nit ñi ni virage bu ñu waron hmm. et dugg na ci dañu bëgg dem ci droite parce que depuis bobu gauche la dem. Hmm. dañu bëgg dem à droite parce que dara sax kumpa. waaw ñu am. Mhm. on ne perd rien à mhm. essayer on ne fera que gagner. Mhm. on ne fera que gagner essayer avec cette nouvelle dynamique cette nouvelle jeunesse ce nouveau Sénégal xam euh, lan mom la ñu am ñun ñu suñu dund ñun ñi Sénégal. ñun ñi nga xamante ne amuñu dul Sénégal ñi nga xam ne Sénégal la ñu wéeru mhm. ñi nga xam dañ leen boddi woon ne leen yéen jàngu leen ay ndongo daara ngeen mhm. yéen euh, amu leen nijaayu euh, ministre amu leen bàjjenu ministre bokku leen ci ci système bi mhm. amu leen ay ay parrain yéen wékkuwu leen fenn yéen baykat bi yéen nappkat bi yéen sàmmkat yi yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla Sénégal bu ba dañ leen fàtte yéen nag ci Sénégal ngeen bokk lan ngeen mënee